Karina la moo nekk sa problème jamono ji Karina ci réseaux sociaux yi dañ toogoon benn instant boo xam ne dégg ñu xëy suba rek gis la ci internet man je peux dire ça yàlla moo ma may parce que y a beaucoup de gens à Dakar yoo peut-être elles sont plus belles que moi peut-être j'ai dit parce que chaque femme est, a sa, sa chaque femme est différente mais c'est pas à tout le monde qu'on parle c'est pas tout le monde qui fait des choses on dit sur eux donc man damay sant yàlla parce que c'est que je fais on parle même si je dors chez moi je fais rien on parle de moi donc damay lan moo waral sa digganteeg Adja Diallo temps yëpp ñuy gis ci internet bi. xam nga loolu c'est même plus un problème parce que man quand je fais quelque chose je l'assume carrément donc saaga bi ma saaga dama ko assumer léegi la may kii rek je demande pardon à mes fans qui m'aiment qui n'ont pas attendu ça donc je les demande pardon quand même et pour les restes ça vraiment ça m'intéresse pas. naka nga gisee Bijou Sisa fashion. Aziz fashion moom yàlla yàlla moo ko may. tudd bi yàlla ma ko may et aujourd'hui on est là pour lui pour le soutenir à pour cent parce que c'est un homme qui travaille et qui vraiment qui croit en à la mode et qui met aussi le nom de son pays en avant Mauritanie.